بسم الله يملها بلا مناهي ولا انتهاء بسم الله يملها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي قدرا ما خير باعتداء لو زقاري بلا كوري وهو نسيري من فداي لو جرابي بلا جرابي لو خجابي ما احتداء لك إيداي لك سماي لك التجاي مجداي يا من سباني يا من أماني أمن جباني حميداي أسبل سطوري أسلي أموري كسر خياري بلا كيداي يا من أجاب من استجاب أبي جاب بسم يا زوج مالي يا سجلالي يا خير والي سبيل الله rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi sant suñu borom di jig yonente bi alayhi salaatu wasalaam di sant seexul xaddim di ñaanal seex Muhammadul Muntaxa suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem ñëwatuk seexul xaddim gépp noonu lañ koy ñaanalee seex Abo Mbàkke li nga xam ne moo fi toog toogaayu seex Muhammadul Fadal di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te mu wér ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Fadel yëpp ak mboolem jullit yëpp di leen nuyu bu baax te di leen sant bu baax a baax. mu mel ne yow yaay président daayira Tawfekh tey ñu tasante ak yéen fii ci kër Serigne Abou Mbacke bi Serigne Fallou lan moo waral seen teewaay bi. waaw teewaay bi mooy li nga xamante ne baaxoo nañu koo def at mu nekk ñu koy amal muy siyaar bi nga xam ne moom la daayira bi di amal at mu nekk ñu koy siyaare ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Mouhamadou Fadel te ñu yàgg koo def. yaa ngi fekk ki nga xamante ne moo fi nekkal suñu fàllu ji sëñ Abou Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadel ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu tamit. daayira boobu ban année bi nag mi ngi sosu 19 mai 2006 moom la sos maanaam fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai atum 2006 ci la sos ñi ko sos nag mën nañ cee tudd ñett ñi nga xam ne buñ leen tuddee daanaka mën naa déterminer wala boog yóbbaale mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci bokkoon ku ci mel ne Serigne. Fallou Galas Fall nga xam ne moom moo njëkk nekk président daayira bi ci ñu ko sos ci la bokk naka noonu tamit Serigne Modou mu ndaw sëy moom tamit ci ñu ko sos ci la bokk ak ku ñuy wax Serigne Dame Leye ak ñi ñu àndaloon ñett yoon rek man ñoo wax ne ñoo nekkoon ci bopp ñi nga xamante ñoom ñoo sos liggéey bi waaye ñi sasoon daayira bi moom am mbooloo la waaye ñett ñooñu mën ñoo wax ne daanaka xalaat bi ak jëf ji daanaka ci ñoom la dooree ba law ci ñu ñu ci àndaloon ba mu agsi ci bisub tay bi. ñooñu nga tudd léegi lan seen ñàkk waaw ñooñu nag nekkuñu fi nekkuñu ci dëkk bi maam ay maam lañ yoo xamante ne nekkatuñ ci dëkk bi dañoo sori ñi ñi ngi Casamance ñi ñi bitim réew waaye seen ñàkk a teewaay fii nekkul ne maanaam dañoo bàyyi daayira bi ba léegi ñu ngi ci daayira bi ñu ngi doxal li ñuy doxal ci daayira bi waaye daayira bi daa am ay membres yoo xam ne nekkatuñ fi dañoo génn jamono bu nekk siyaar bi daanaka li ñu koy fekkee sax bëriwul. na dëkk yi dañuy sos ay daayira doole lool waaye bu ñu demee euh, loolu ndax na leen waaw loolu mën nañoo wax ne dal nañu mën nañoo wax ne daluñu ndax boo xoolee daayira bi biñ ko sosee ak léegi yàgg na ndax 2006 ba 2021 presque 600 euh, la daanaka boo koy seet ndax boo xoolee bu ñu demee ba ci 19 mai 2021 la ñu am fukki at juróom-benn. kon loolu yàgg na man ñoo wax ne nag daayira bi li ko fondement ba léegi mi ngi fi dëgër ndax génération bii fi nekk am na ay génération ñoo fi jiitu woon ñooñu dañoo ñëw def li ñu waroon a def yàlla dogal jamono tënk leen ba mëntuñoo teew wala ñu génn dëkk bi ñeneen ñëwaat man na waan tamit xëy na li dal daayira mën nañoo dal mooy euh, li xew ci jamono ji muy ñàkk ñàkkuk jot gi ak ñàkk ak ñàkkuk maanaam positif gi ci ñenn ñi lay des fois da ci yam waaye bu ñu xoolee daayira bi fi mu jugee ak suñu mu toll mën nañoo wax dañuy sant rek suñu su subhanahu wa taala ndax bëri na ay daayira yoo xam ne fii ñu toll maanaam avant ñu fi toll am na nun nag yàlla suñu borom mi ngi musal ci loolu ñu ngi ñaan surtout soos suñu borom gën koo yokk barke Seexul Xadim. bu ngeen sosee rek léegi lan ngeen lan ngeen réalisé nañ ci teg. moom. man mën nañoo wax ne boo xoolee li ko ko exil fii loolu bokk na ci ndax bi ñu ko sosee mil 2006 lañ ko sos mil 2017 daay njëkk a yaa réalisé dara ci matériel muy ay chaise boobaak léegi nag at mu nekk matériel boobu dañ koy gën a yokk daayira bi am na ay matériel yoo xamante ne nii lu mel na ay baas ay chaise ak ay basang ak matériel yi nga xamante ne dañ koy soxla ci xew yi yooyu yëpp daayira bi am na ko loolu bokk na ci li tax xëy na liggéey bi gën a euh, jàppandil gën a gën a jàppandi ci suñu côté ndax daanaka boo xoolee base bi rek ci ñi li ñu joxe waaye am na ci ndëgër laay loo xamante ne nii euh, lu mu am la muy ay matériel yi nga xamante ne xëy na euh, am na fu ñuy féete ci wàllum jàpp lañu ci liggéey bi. xaymaal bien wu daayira bi. bien wu daayira moom bu doon xayma ci côté matériel daayira bi am na ñeenti base. ñu baa demoon table yu ndaw yi muy 5 yi am nañ ci ñeent sees tamit am nañ ci 100 muy ñaat muy téeméeri sees ay basang am nañ ci yaakaar naa set fu mu jumut am nañ ay ay ay rajo yi ñuy daayira ak yeneen bagage yi nga xam bagage sew sewaan la yu mel ne maanaam ñu jëm ci wàllum ay defukaay na ko yooyu yëpp nañ ko. bu ñu yooyu yëpp. waaw année bu nekk nag maanaam bu buñ xoolee matériel bi daayira bi am année bii passé lu gàtt gàtt matériel bi liggéey na 300000 maanaam lu gàtt gàtt ba mu la ko mën a xaymal ndax bilan daal bu jàpp ma ko waaye lu gàtt gàtt matériel bi liggéey na 300000 boo xoolee sax li membre yi teg des bu ñu boo ko boo ko comparé ak li ak li ak li matériel bi ñu génnee daanaka li matériel bi ñu génnee da koy da koy da jot tuuti des fois sax xëy na buñ boolee. bu génnee buñ génnee cotisation rek te duñ ci boole social li membre yi di teg li matériel di teg li matériel di génnee da koy da koy ëpp te loolu dañ ci sant bu baax a baax ndax xëy na lii lañ xamoon ndax boo xoolee bu fekkoon ne lépp luñ dajale dañ koy yemale fenn rek lii nga xam ne yàlla dogal na ne ñu ngi koy jàppandi ci côté matériel duñ ko duñ ko am. mel ne nemmeeku nañu côté at mi jàll am na feebar boo xam ne dëkk ndax loolu jàpp day waaw ah, loolu moom jàpp na ko bu baax a baax a baax. ndax boo xoolee année bi ñu nekk nii lu gàtt gàtt daan nañ daayira fukki weer ak benn ndax Ramadan daawu ci bokk euh, ren nag boo xoolee li ñu daayira doon moo juróom weer ak ñaari semaine la moom man daayira li ko waral mooy pause gi ñu posé liggéey bi ndax feebar bi nga xamante ne moom moo fi nekk muy coronavirus bi naka noonu ci wàllu matériel bi daan na liggéey loo xam ne nii boo xoolee lam daan liggéey année yi passé ak li mu liggéey jamono ji euh, xaw naa xaw naa suufe lool boo xoo boo xoolee tamit ci côté cotisation yi tamit ñi daan teg jamono ji maanaam année bi daa gën a wàññeeku par rapport ak année bi passé boo xoolee. addiya ji hmm? tamit ren mën nañoo wax ne xaw nañ koo wàññi waaw ren mën nañoo xam ne xaw nañ koo wàññi ndax euh, maanaam li ko waral rek mooy comme ñi daan teg dañoo wàññeeku. ñu xaw a wàññi li nga xamante ne moom lañ daan waaye wàññi googu ñu ko wàññi tekkiwul ne dafay nekkut tekkiwul ne dafay nekkut waaye dañoo gis ne kat lii ñu dal nii man naa mën naa xëy na mën naa an ab année ñëw na loolu mën ñoo dalaat su boobaa ñu fas yéene jëmmalaat loo xamante ne nii lu mel ni bu ñu dalaatee tamit dinañ ko mën a jëlee foofu nga xamante ne nii moom mooy matériel bi moom lañ bëgg mu yokkaat gën a yokkaat matériel mel ni bu dalee. ñu gën koo mën a fàggandiku maanaam daayira bi wax nga ay ko yàgg na fukki at ak juróom wala fukki at ak juróom-benn ndax mos a jànkoonte ak ay ne léeg-léeg dinañ ko nemmeeku ci daayira mu mel ne ay këpp ay kees ak yooyu noonu. waaw loolu moom yàlla suñu borom musal ñu loolu moom yàlla suñu borom ñu ngi ciy musal ndax amul benn année boo xamante di a mu nekk nag li dugg ci daayira bi dërëm bu mu mënti doon ginnaaw baa ne bu jeexee dañ koy leeral ba képp koo xam bokk nga ci daayira bi nga xam ne kat dërëm daayira bi kat tag bi nangam la location nangam la nangam lañ ci siyaare nangam moo ci des li ci des nangam lañ ciy def ak def lañ lañ wax ne moom lañ ciy def tamit bu ñëwaatee buñ ko ko ci defee dañu ñëwaat leeral ko ci kanam mbooloo mi loolu moom suñu borom suturaal nañu ci ñaan suñu borom gën ñu cee doon sutura ndax xëy na mën naa mën mën naa am mën naa ñàkk ndax lépp loo xam ne na ko rek suñu borom noonu daal mën naa def loolu mën na cee bañ am. naa question bu mujj mooy nga soññee rek jaar waaw soññee bi moom mooy sant si borom bu baax a baax ndax bis bi nga xamante ne yàlla dogal moom lañ teew fii day bis bu am solo ci ci daayira bi di jaan suñu borom lépp loo xamante ni maanaam liggéey bi képp ku ci nekk ñu lay soññee bu baax a baax ndax lii mooy mooy wane ne daayira bi mi ngi mi ngi am. buñ demee ba lii amutul rek mën nañu wax ne daayira bi moom amutul ndax mën naa wax ne mën na mën nañu mën nañu bañ a daja du teew sax te lii di am bu demee ba siyaar amutul moom moom mooy waral ne daayira bi amutul kon loolu nag ku nekk si ñun fa bu ñu ci def mooy nga jàpp ne kat man fi ma jàpp bu mu ko bàyyee daayira bi man na mën mën naa mën naa mën naa yàqu loolu nag ku nekk bu ko defee ci boppam rek yaakaar naa liggéey bi dina na gën a mën a dox li ñu war suñu diggante ak daayira bi tamit ñu koy matal ndax daayira bi moom yaakaar naa li ñu wax suñu diggante moom bëriwul ndax bu dee teg bi góor ñi kan mi la ñu mag ñi bu dee ji ñu ndaw ñu deux mille cent loolu bëriwul kon suñ li ñu wax suñu diggante daayira bu ñu ko dee def moom yaakaar naa daayira bi dana gën di dox li ñu koy bëgg ñu koy am loolu nag ku nekk ñun da ciy xool boppam rek jàpp ne mbaar mi moom man aw jën laa man man mi ci nekkul jënd su ma su ma su ma màbbee wala wala ma fàq su boobaa mbaam yi bu doon ñeenti jën ñett a cay des te su yàggee am mbaam dootu fa am loolu loolu la ñu soññee di ko def suñu bopp ak képp kuñ bokkal liggéey bi moo xam nga teew moo xam nga ñàkk a teew moo xam nga sori moo xam nga jege ñu lay soññiwaat bu baax a baax ci liggéey bi di ñaan suñu borom lépp luñ ci bëgg ak lépp luñ ci nam suñu borom dafa ñu ko ci barke Cheikhul Khadim barke Cheikh Mamadou Fadil waaw soññee bi moom bi ma koy jublu ci suñu mbokk góor ñeeg soxna yi yëpp ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ci wàllum euh, teg bi ak jàppaat daara bu baax a baax ndax ñi fi euh, boo xoolee daara bi dina ko suñu mbokk daal di waxee loo xam ne dund na lu toll fukki at ak juróom-benn loolu doonatul gan kon nag ñun ñëpp war nañ cee mën a jàppaat baax baax surtout ñi nga xam ne dañoo génn yàlla def ñu génn ñu gën a di teewlu di di yónnee seen teg yi bu ko defee ñu mën a liñ bëgg a def lépp ñu mën koo def di gën a soññaat ñi nga xam ne ñoom ñoo féete wa eh, Touba bu daayira jotatee lépp loo xam ne jàpp nañ ko ñu jëm ko bàyyi ñëw fe ñëw ci fexee teew ci daayira bi ndax teewaay bi ñuy teew ci daayira bi du yàgg presque yaakaar naa une heure de temps lay mat nga ñëw teew après nga dem kon ajuma ko ko nañ koy jéem ñi ñëpp di ko jéem a matale ajuma bu jotatee ñëpp bàyyi li ñuy def lépp day ñëw ci daayira bi waaw man soo man man da ngay dégg woote ba léegi mun ñu di soññ ñi nga xam ne euh, ñi nga xam ne moom yàgg nañoo dégg daara Tawfekh mais euh, yàlla def na ñoom bokkugun ba tey ñu ngi leen di ñaan ci at mu bees mi bu ñu duggaatee incha allah ñun ñëpp ñu fexe ñëw bokk ci daara bi ndax daara bi ba nga xam euh, daara bi daara Tawfekh dafa doon daara boo xam ne dafay yëngu ci lu bari social yëpp di ci yëngu kon nag ñun war nañ cee mën a jàppaat bu baax ci loo xam ne ci koñ bi la la ci koñ bi la féetee ndax daayira bi yëmut ci jébal bi kafe da ngeen yaakaar ci jébal yam yëmut ci jébal bi kafe ndax xam ne sant yi bi da euh, Touba ca kanam bi mu yëkkatee liggéey boobu mu doon mu euh, defar defar yooni Touba ñu waa waa waa waa waa daayira bi ñoom participé nañ ci ceenum xaalis kon nag war na la war na la daayira Tawfekh yëmut ci ci jébal bi kafe mais ah, day jëngu ci social da si jëngu bu baax a baax déedéet social bi yaatu na lool lu mel ne ci wàllum déguisement yi tamit ndax bari na gone yoo xam ne seen i waajur ñoom ñoo leen xotti ñu ci bari amuñu déguisement daayira def at mu jot mu jëm yi bari joxe ko joxe gi ñu koy joxe nag muy ñëpp ñëpp am ñëpp moo xam góor yi moo a ñoom ci surtout ay gone parce que ñoo fi des ndax ñi ñi nga fa gis ñëpp seen mag ñoom ñoo fi newoon yàlla def ñu defee ba génn seen rakk nekk kon ñun war ñoo sant yàlla baax a baax a baax loo xam ne te te lépp lu ko waral mooy suñ mag ñoom ñoo ko waral ndax yàlla daal biñ juddoo ba doon tool ba tool nii ñoom lañ gis ñuy def lu baax ndax mënoon na def leneen loo xam ne ñun boobaa ñu buñ juddee fekk la ñun ñun duñu neex waaye yàlla dafa def buñ juddoo ak léegi fekk la ñuy def lu baax moo tax ñun buñ génnee lu baax la ñu bàyyeel moo tax lii noona la mën naa wax ne noona la ndax ñun ñii fi nekk ak gone yi seen rakk nekk bi yàlla na dema dem ba suñuy sët yor yor liggéey ci bàkk Serigne Touba waaw kon xam naa ne di gën a sant ñi nga xam ne ñoo ñoo ñëwoon ci ci ci lii bi jëble bi di sant ñi nga xam ne tam gën bëggoon nañoo teew yàlla def ñoo teew di ñaan suñu borom li nga xam ne moo waral jafe-jafe yi am ci réew mi suñu borom jële ko fi lu mel ne coronavirus suñu borom dàq ko fi bàcc seen bu ko defee kenn ku ne la nga newoon yàlla def nga delluwaat lépp gën a yomb gën a baax gën a neex di gën a baax ba àjjana incha allah eh, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax baax ba ñu may kattan ak wér ba nga xam ne chaque année ni ñu koy defee di ñëw di indi suñu addiya ñu ngi ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax di ñaan chaque année mu fekk ñu fi ñun ñëpp kenn bay manqué. mu mel ne yow yaa vice président daayira man soññaa ngay sama mbokk taay bi rek ak ñi xam ne maam ñu la bokk liggéey waaw waaw xanaa di ñu gën a fonk liggéey a jàppale a a baax a baax ñu ñu murid am naan café ak liggéey suñu kese ma am maam su fekkee ñun nag ay ndaw dañuy liggéey maam koor ne dafa jëlee liggéey muy sama xam dul fàddal da yaakaar naa kuuma ki kenn di ko liggéey di fanaan bi tub kon mën nañu soñu yar bu baax a baax muy ñu ñu bokkal bureau bi ak ñu bokk jaar bi waaw ñu gën a fonk ak jaar bi bu baax a baax di teg di teew tey teew laa dem noonu sañ bu baax a baax baax waaw xanaa xanaa xanaa di xanaa kii di ñaan di ñaan maam chaque année mu mel nii rek chaque année maam ñu am yokkute waaw di ñaan maam ñi xam maam ñoo bokkoon da suñu borom jël na fii suñu borom gudd fan loo tam ànd ak yéen yéen mbokk daal bi yooyu ñëpp maa ngi kenn dégg kenn képp ku may dégg rek nga jéem a am nga jéem am pastéef farlu di jéem a matal teg buñ la laajee ngay bañ a joxoon ngant yu bari nga jéem a teg farlu ji deret bi rek booy te nag ngay sol sa déguisement tubéy ju weex bi ak bula ak euh, bas bi ñu gën ñu gën cee am ñu gën cee am bu baax a baax bu ñu jógee si yaar bi moom xam naa moom loolu moom xam président rek moo ci moo ci mën a xam dara incha allah bu ko bu rek bu naagee bu ko bu ci joxee rek incha allah ñu a commencé waat liggéey bi incha allah. yow bokk ba yàgg na lool waaye ngi doog a mos a fekk eh, kon loolu sama kontaan lool waaw nag waaw boo ko laajee saison dem ba nga xam ne bokk nañu saison doo ko fekk daayira ab jébbale xam nga loolu boo ko fekkee eh, kawe na njort daal ndax sant nañ ko bu baax a baax a baax te suñu xol sedd na lool waaw man fi waaye bàyyi ngeen fi ndaw yoo boo gisee daayira bi boo xolaatee daanaka ay ndaw rek nga gis moo tax fi ñu doon nii sama xol dafa gën a daal ndax xam naa ne fekkoon na ñoom def na ne comme ñun kon daayira bi kon tas na bu yàgg waaye gis na seen posture ak seen taxawaay ci ñoom ñëpp kenn ku ne boo sañoon daayira bi du laal suuf te gis nañ seen taxawaay kon nag ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax rek suñu borom taxawaay gën leen a yokk gën leen a dëgëral ndax suñu xam kon soññe tamit nga def ci ñi nga xamante ne yéen a bokkoon sa soñ daayira bi te jamono ji génn waaw soññe bi may def ci ñi nga xam ne ñoo bokkoon daayira bi te ñu fi génn mooy ñu gën a fonk daayira bi nga xam ne amuñu lu dul daayira bi ndax daayira bi fekkee dañ ko dénk ndaw yi ñu téyel ñu ko kon boo xool ñun lañ ko téyel kon ñun ñoo war gën a euh, gën leen a dëgëral di gën a di jokk ak ñoom di waxtaan ak ñoom euh, lépp loo xam ne si daayira bi da koy soxla ci xel ak xalaat ñu leen ci jàppale te ñu fexe ba ñi xam ne ñoo ko jiite woon ñoo ko sampoon suñuy suñuy teg di bañ di manqué nañ ciy jiitu waaw nañu jiitu ci teg bi ko defee ba pare eh, mu xaw a saax suñu côté ci teg bi kon loolu day day day la bu leen di jiite daal ñu jàppale leen ci teg yi ba fexe ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ñuy teg bu ko defee nii dëgg bu ko taxaw bu baax a baax. tey di ñaanal suñu aboo bi mu yàgg lool te yàgg ko yeggale daal suñu faal yi ñaan yéen mos yi yéen maa ngi amu leen lu dul daara suñu faalu bii fu àjjuma jotatee ak waxtu wi lu waaye di mun ci jàpp na ko bàyyi tey teew te bu dikkee ngeen jublu penku noor banque seen i tànk wii na ñuy def si daayra bi métti na ma lool nag dama cee mënul dara ndaxte man. bu ma waxee nit ñi jànne nag loolu nag métti na su ma soñoon nag ngeen ami yar ami teggin loolu dong laa ci gis te ñaan li ñaan yàlla li nga xam si ne naal nañ ko ci yàlla nañ ko suñu borom eggale ci baax suñu saa xayri murabi tayyata qalbi fatastiday salli wa sallim ala al-mutamim فكن عاسم إلى انتهاء صلي وسلم على المتامم وكن عاسم إلى انتهاء صلي وسلم على المتامم وكن عاسم إلى انتهاء اللهم بأقوال الله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وفرع بهذه المنزومة في كل وقت وحينا عبدا وحبلنا جميعا لذاك